fu waaye man di nekk di ñu teewlu ci seen chaîne télévision MK TV Grande Mosquée de di ndokkeel ñëpp ci koor gi di ñaanal sunu kilifa te di ko jiital ci ndokkeel yeeg nuyoo yi Cheikh Mouhamadul Mountakha xafidahullah wa raa ak mbokkam yëpp di ñaan yàlla may ñu kàttan sàmm ñu aar ñu làq ñu feeq agut ba ñu euh, woor ni mu ko nammee te e, ci yam lam ca lam ca diggee incha allah barkeb sëriñ bi waaw suñu bind tey ci koor gi dañ koy jëmale rek ci benn dénkaan boo xam ne sëriñ Tuubaa da ko dénkaane woon firee ko aaya bi suñu borom di wax wa an tasuumu xayrun lakum muy benn e, wax joo xam ne dafa jóge ci benn aaya ca suuratul baqara aaya ba tolloog téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett suñ tubaa ne wanta suumu xayrun lakum manes na ci amu déggin déggin bi mooy lan mooy seeni pas-pas ak seeni wax ak seeni jëf ak seeni jukko bu ngeen fexee ba mu woor moo gën ci yéen ñu ne ko pas-pas nu muy woore mu ne pas-pas day woor ci di xalaat ci lépp lu juunu boo bàyyee xalaat lépp lu juunu daal mooy sa pas-pas woowaat na ci walis lu bokk ak la yàlla nam boobaa nag la nga doge mooy xalaat ci kéemtaani mbindeef yàlla yi xalqullah xam ngeen ne alxuraan woote na ba tàyyi ne ñuy xalaat ci xalqullah ci mbindeef yàlla yi ndax noo gën di xalaat rek ci mbindeef suñu borom yi di gën a jege sa borom di ko gën a xam waaye di gën a làq ay mayam daana ni ngeen di woore ci wax mooy ngeen woor ci lépp lu araam ak lu ñu sib bu boobaa leen yàllay faye daf leen di faye ci bu ngeen waxee rek day ànd ak xikma wax ja day gàtt sa am njariñ làmm lu bari sëñ bi teg ci ne suñu moo moomi nag mooy ki nga xam ne yuutil xikmata man yashaa wa man yuutal xikmata faqad wuuti xayran kathira suñu borom mooy maye xikma te kum may xikma nag xamal ne jox na la yiw wu baree bari kon noonu la ñuy wooree ci wax ay wax kooram ci loolu la jëm da ngay woor ci lépp lu araam ak lu sib daan ni mu ko jëf ji nag jëf yi nu ñuy woore mu ne jëf dafay woor ci bidaa mooy lépp loo xam ne rek dëppoo ak sunna moo xam muy lu ñuy wax wala lu ñuy jëf boobaa la muy doge mooy day jëfe sunna kon képp ku fi bàyyi bidaa rek yaa nga ca sunna daane sunna nag daf lay yóbbu ci nga dugg àjjana bu dee bidaa dafay yóbbe ca këru safaan nga wal iyaasu mu ne jukko yi ñu ngi woor ci rëy ak iñaan ak parparloo ak dangar mooy rek tàngoor wu metti woo xam ne ànd ak sabab nee loolu ku ko def da doge ci ay ngëneel ak ay jukko yu baax kon incha allah loolu mooy suñu bind tey ñu gis ne daal nit ay waxam war na koo takk ay jëfam war na koo takk ay ay ay jukkoom war na koo takk waaye tamit ay pas-pasam na koo takk te nam koy takke mooy mu bàyyi lee mu bàyyi lépp loo xam ne safaan la bu ko defee la ko ci yàlla fay incha allah mooy lépp loo xam ne aw yiw lay doon barke lay doon lu baax lay doon ci moom kon ñu foofu ba ëllëg salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarhiiban bilaa adadi